dikkati naa mandat baa ngay jeex de ban bu président Macky Sall xanaa Sud Quotidien daal di may xamal nem nay defi yuy xaar moom président Macky Sall ci njeextaluk mandat bi moom moo di yokku tey mu daal di xool nees def ba mu wàññeeku ci réewum Sénégal waaye tam bennoo bokk yaakaar tërëf gi wàññeeku jógub opposition bi taxawal gouvernement bu yees yéen kaay bi ne ma loo ci manti dee gin mandat baa ngay jeex tribune yéen kaay mel ni ku naan maan bugaan géy dari day dafa mel ni ku ne moo gën ci président Macky Sall ndax moom président Macky Sall mii bu insisté ci ne day amal ñetteel bi mandat ci réewum Sénégal day lenn laa ko mën a waatal ne dinaa jiite ña koy def mooy dinaa dem ba Mermoz ànd ak ñamay àndal ñu daal di assiégé këram ca Mermoz bugaan ne bañuñ ci ba noo fanaanoo waaye président Macky Sall moom nit mënta wax ci mim réew ba duñu abal le témoin quotidien daal di xam le nii moom bugaan gëy dandi jiital gëm sa bopp day daal di nay xam le ni moom président Macky Sall dafa jariñul dara mu Sénégal dara bugaan ne waroon ngeen ma jox budget bi seet ñeenti junniy milliards yooyee waroon ngeen ma ko jox seet ba xam xaar kanamu Sénégal dina soppeeku wala bugaan ne la ma def ca tëmb mbay raw dinaa ko def ci dëkk-dëkkaat yi nga xam ne ñu ngi ci réewum Sénégal Papa Ngagne Ndiaye ne ko moo bugaan loolu dafa mën a nekk Le Témoin ne kaay ne ma bugaan da koo tontu ne ko mën naa ne ndax ak fanweeri milliards man nga cee defar juróom-ñetti junni case de sante loole daanaka day wër village yi nga xam ne moo nekk ci réewum senegal l'évidence yéeni kaay ne ma laaj nañ ko yidde lan moo waral mu jàppale opposition bu réewum Sénégal bugaan ne ko xeex ma waaye tam jàppale askanuk réewum Sénégal jàppale opposition bi ngir nag ñu am assemblée nationale boo xam ni opposition ba moo fay njiit ak wax ci réewum Sénégal Bougane ne moom président ki Sall moo jiite opposition parlementaire ba ca biir assemblée nationale Bougane ne ko lii ma def askanu réewum Sénégal ñooma ma ci ñor du keneen le mandat yéen kaay ne ma gannaaw ba ñu ko laajee ndax yi rafet lu nan sa jàppale gi Bougane ne Déthié Fall woo na ma Lamine Thiam woo na ma Khalifa Ababacar Sall woo na ma Ousmane Sonko peut-être amul temps waaye daal woo nañ ma te la ci ëpp solo Bougane Gueye Dany ne xaaruma dara ci kenn la ma def askanu réewum Sénégal ñoo ma ñor te ñoom laa ko defal Bougane ne ndax saa si tembe réew mi toll ku jàppale askanug réewum Sénégal tàqale leen ak président Macky Sall yaa ngi ci yoon tribune yéen a kaay ne ma moom président Macky Sall day bàjjo bi dafa nekk ci guddi gu bër setagul ay alliés yoo xam ni fatt nañu président Macky Sall te amaluñ ko benn njëriñ parti socialiste AFP réew mi bés du ñàkk PSD ak PIT yéen a kaay bi di pe Aminata Mbengue Ndiaye Alioune Ndoye Niass Idi ak Jamil ñu amalul président Macky Sall njëriñ yéen a kaay bi ne ma réew mi moom mi ngi ci coma goo xam ni nelaw bi du gaaw a yeewu PIT moom nekk ci sukuraat daana ko faatu fa yàllaa xoo ko dese su du ñàkk moom saful yàpp saful jën le vrai journal daal di may xamal ni ñii di ay alliés la ñoo xam ne nii ñi ngi boot bootu ci ginnaaw président Macky Sall ak APR mandat ba buy jeex ñuy ànd ak moom parti socialiste su moom bokkatul AFP gannaaw Moustapha Niass lan moo fa nekk LD moom jogoon na ba jonkan waaye tëddaat na fa yàllaahu PIT moom ma ngay dox ca Facebook kese AJ Landing Savané kenn gisatu ko fenn turbine ne ma allié yu amul njariñ lande moo tax it ca bés bi la jour Mawlu Jaxate bu AFP ma ngi fay xamle ni Benno Bokk Yaakaar nag bu doon bés la mënees naa wax ni timis yot na ko na xool ci yeewi askan wi ngir mën a nekkaat Dakar Times daal di xamle ni saa si tembe day Pape moo fi ne ndax am na kenn ku dëkk Thiès ku xamal ne ko yow Papa Djibril sunu chance turbine kaay mel ni ku naan maan waaye pap ci boppam dafa saful yàpp saful jën ma ngay xamle ni nekkuma ak Macky Sall waaye libération ne ma bul yeggali pap kay xamle na ni àndut ak Macky Sall waaye tamit àndut ak opposition du ma sàmba du ma demba na leer boobu wadd daara wadd njaag fara wadd njaag ma ngay remobiliser tribune yéene ne ma Abdoulaye Wade day ma waajal 2024 bas bi la journée moom Abdoulaye Wade kay xamle na ni chef opposition bi moom a tàngalaat na ca njaayum carte ba moom maître Abdoulaye Wade saa si tembe ak waa PDS xam leen ni nag ak njaayum carte mi waaye tam daal di dajalewaat seenu nit man na leen jox ndam ci élection présidentielle yu 2024 bi bés bi la journée waaye ñay jaxase seen ànd ak yeewu askan wi day wàdd ma ngay artu vox populi ne waaye ma ngay xam leen ni moom mooy force bu njëkk ba opposition parlementaire bi moom PDS yéen kaay bi ne ma desal ci man ma xamal la ne El Hadji Malick Gakou day candidat lay doon ngir 2024 moom El Hadji Malick Gakou na ko ay lingeeram ne leen pare naa ci plan yépp doon candidat candidat 2024 l'enquête quotidien ne président Macky Sall yi dépare na gaaw bii dina dajale ay nitam ca présidentiel ba di député yi nga xam ne fal nañ leen yees war a waxtaan ak ñoom moom président Macky Sall ci ki muy tabb ngir mu jiite assemblée nationale Walf Quotidien ne lu muy defit na doon lu gaaw de ndax saa si tembe Sénégal ci boppam amul njiit président Macky nekkul ci réew mi amuñu premier ministre assemblée nationale ba tas nañu ko kan mooy doxal réew mi saa si tembe mi Quotidien ne en tout cas assemblée nationale day dara du ko dàq ci réew mi ndax nag vote bi secret la ku ci nekk bañ gàcce ga votel kala saf moo tax ba nii yéen kaay bi xamal ma ni bu kenn yaa am majorité l'info yéen kaay ne ma coowal Aristide Le Dantec gi day daal dinay tas tasar universitaire yi gannaaw professeur Ndiaye démb professeur Ndoy moo koy tontu professeur Alain Xaasim Ndoy daal di xamal professeur Moustapha Ndiaye ne ko boo yàggoon Dantec tey di xam jafe-jafe yuñ doon dund ca Dantec màggetoon na tabax yaa nga doon nërmeelu ci kaw nit ñi gis ngeen vidéo xale ba ñu doon opéré courant coupe tuutee koon mu faatu gis ngeen keneen ka ñu doon opéré ndox ma daal di dugg ca salle d'opération ba koy ne ko maa la amul lenn loo ma mën a jàngal ci médecine bu ñu nee ceel rek ñun universitaires yi respecté leen ko ndax nag ñun ñi def fanweeri at Dantec xam nañ ni dëgg-dëgg tojub Dantec boobee lu war la lu ñuy xaarandi woon la te it lu ñu yàkkamti mu noppi la ndax nag loo ci mënti waxit Dantec bun ko nërmeelul woon mu def lu doy waar askan wi critique yéene kaay ne moo ministre de la sante santé Marie Khemesse Ngom Ndiaye ndax coowal Dantec di dana ko fi ba ndax dina ca rëcc mbaa mu mucc ca libération yéene kaay ne ka ñuy ñaan mucc kay mooy Senelec saa si tembe day ma gën di rek téeméeri milliards la Senelec yore ciy bor jox nañ ko nag ab artu moom Senelec yéen kaay bi ma turki la dem lëkkalool moom Senelec fukki milliards ak ñett la cay def weer wu yàlla sàkk ci gafaam saa si tembe mënta leb benn banque te mënta fayit boru ñaari téeméeri milliards yi fan la Sénégal jëm xanaa dëkkee xuy xab tribune yéen kaay ne ma lu coow li bari bari bu leen fàttali jottali président Macky Sall ne ko day ay paa yoo xam ne dañ doon liggéey ci agence yoo xam ne dañ leen seeyal ci réewum Sénégal ñu ngi ciy grève de la faim ñu ciy évacuer ay nit saa si tembe day bu ci président Macky Sall waxul jëyee mën naa yi liggéey ca Sotrac ca Sias ca Ama Sénégal ñi ngi ci xiifal toll nañ ci ñaar fukk lañu moom la ñuy sàkk ñu fay leen mu di seen i ndàmpaay juróom-ñaar ci ñoom évacué nañ leen ci l'hôpital yi ay volontaire ci boppam ñoo leen di jàppale ci nekkin nga foofee te seen soxna ña ngay menacé ni boo moytul daañu dem bàbbeeku ca xeex ba lu président Macky salla mën a jël ci dogal gestu ñii dafa gën ci réew mi lu ci mënti amit nañ yendoog jàmm mbokk yi